أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعثه الله لأمته هاديا ومربيا فعلمها ورباها وأعدها فأحسن إعدادها شبابها وكهولها وشيوخها ورضي الله تعالى عن صحابته الأبرار الذين تربوا على يديه وتعصصوا بحديه فكانوا خير مثال بسبب المسلمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci tur yàlla tabaraka wa taala ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ñu jubal ci lislaam moom yàlla moomu moonu génne ci lëndëm jubal ñu ci leer ñuy julli ak a ñaanal ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam moom mi nga xam ne yàlla daf kaa yónni ci xeet wi mu nekk kuy jubalaate waaye mu nekk ku leen di yàq moom yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ñëw jàngal xeet wi yar leen préparé leen ndaw yi ak mag ñi ak màgget yi ñetti génération yu yëpp yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam li mu indi ku nekk rek am nga ci wàll am nga ci cër yal na yàlla kontaan ci saxaaba yi nga xam ne ñooy ñu tedd ñu baax ñoo xam ne ci keppaaru yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ñu yaroo ci ay loxoom la ñu yaroo ñu daal di koy roy loolu moo tax dana nekk modèle dana nekk misaal ci ndawu jullit ñi tey ñu roy saxaaba yooyu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam yaroon ci góor ak jigéen ginnaaw loolu doomu ndeyi mbokk yi ñu ngi bëgg a waxtaanee tomb bi nga xam ne moom la Cheikh Umar ubbee léegi mooy taxawaayu ndaw jullit yi ci pas-pas yu bon yi am léegi waxtaan wi bëgg nañ koo xaaj juróomi tomb bu njëkk bi war nañoo xam lan mooy pas-pas ñaareel bi mooy yittewoo bi lislaam yittewoo ndaw ñetteel mooy lan moo tax pas-pas yu bon yi am ñeenteel mooy ay modèle ci ay ndaw yu taxawoon ci seen jamono xeex ak pas-pas yu bon ya amoon ci seen jamono juróomeel mooy ndaw jullit yi tey lan mooy seen taxawaay ñoom ci pas-pas yu bon yi am suñu delloo ci tomb bu njëkk bi mooy pas-pas yu bari ñu léeg-léeg ñu dégg ñu ne pas-pas loolu arab naan aqida lu nu di gëm la fas ko ci xolam fas yéene koo dund bu dee lu baax bu dee lu bon lu nit di gëm la laa wax ci xolam gëm ko yeew ko ci xolam ba mu dëgër bu dee lu bon bu dee lu baax fas yéene koo dund waaye fas yéene loolu mu tasaaroo fas yéene koo solal mbubb sax di ci woote loolu moo tax lu nit di fas yàlla nay lu baax parce que boo fasee lu bon rek safara nga nar a tàbbi ak moom loolu moo tax yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam bi ko yàlla yónnee mu ñëw ci pas-pas yi la tàmbalee ndax am na lu mu fi fekk lu gaa yi gëmul lu tolloog ñetti téeméeri yàlla ak ak ñett ci biir kaaba bi ak ay aada ak ay xarfakuufa ak ak ak waaye yonent bi ñëw taxaw si miir di xeex ci pas-pas yu bon yooyu di ko xeex fukki at ak ñett di génne saxaaba yi ba pas-pas bu bon boobu set ci ñoom ba ñu set wicc loolu moo tax ñi nekkoon màkk amul naaféq màkk dund màkk amul naaféq fan la naaféq yi nekkoon mooy Médine parce que boobu fekk nañ ñëw nañ fekk mbir mi nooy na mbir mi yomb na mooy comme li xew tey te màkk ña fa nekkoon ñëpp imaan bi dafa sax ci seen xol pas-pas bi dafa leeroon ci ñoom li leen di wan ne pas-pas lu doy waar la mooy xool leen yéeféeri màkk bi yonent bi taxawee laaj leen benn baat rek ne leen wax leen laa ilaha illa allah ngeen texee ñu lànk parce que xam nañ pas-pas bi suñ ko suñ ko waxee du may ngoog ñoom la ñu gëm moom bi mu ñëwee ne leen kennal leen yàlla ñu ne ko ajaala al alihata ilahan wahid ndax dangaa bëgg a def yàlla kenn mu ne waaw ñu ne ko inna hada la shay'un ujab li mbir mu yéeme la ñun am na ñetti téeméer yàlla fukk ak ñett nga bëgg ko def benn non maa sami'na hada fi abaina al awwal ñu li dégguñ ko ci suñu baay yu njëkk ya kon mënuñu laa gëm kon mbokk yi pas-pas loolu nit ñi war a sonnewaat tey la pour leeral ko parce que yomb na trop ñu nekk di yëngatu ci diine ñuy woote woo Sénégal di wax ne quatre-vingt-quinze pour cent yëpp ay musulman lañ waaye musulman yooyu boo doon càmbartey seen pas-pas da ngay fekk c'est zéro loolu lu doy waar la parce que pas-pas bi leeru di nga gis jullit bu am xàmb ci biir këram di nga gis jullit bu takk béjjën ci buntu këram di nga gis jullit bu takk béjjën ci va volant otoom léeg-léeg sax ci ndigg yi est-ce que sax amul ñu toog fii ñu takk loolu allahu a'lam muy mbir yu doy waar yu jara waxtaanee diine bu leeree jullit benn pas-pas dong lay am muy yàlla kese kese kese lay gëm yàlla kese lay jaamu du ci teg leneen mbokk yi bu ñëwee ci ñaareelu tomb mooy ihtimaamul islaam bi shabab islaam yittewoo gi nga xam ne yittewoo na ko ndaw loolu danañ gis yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam jagleel ndaw yi ay hadis ndax importance bi nekk ndaw am importance yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam wax na xamsun qabla xams mu ne juróom balaa juróom ñëw juróom balaa juróom ñëw soo toppee yooyu mu ne juróom balaa juróom ñëw di nga fa fekk mu ne shababika qabla haramik ci nga nekkee ndaw jaamu yàlla balaa ngay màgget ci nga nekkee ndaw toll ci sa 18 ans jëm 40 ans yont yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na jaamul yàlla balaa ngay màgget lu tax parce que ndaw li mu mën mag mënu ko tey boo doon xool ndaw yi ci football bi ci wàllu sport bi soo lim ci làmb ji ci ci doo ko fekk ay màgget ay ay ay ndaw kese nga fay fekk ñi nga xam ne am nañ ci 40 ans sax wala commencé dugg ci yeneen yi sax dañ naan ñi ay màgget lañ mënatuñ dara xale yu tuuti rek gis nga parce que ndaw lu am importance la li lay war loolu mooy beneen xadis bu yonent bi wax ne lan tazula qadama abdin yawma alqiyama hatta tusal arbaa xisaal an shababihi fima abla wa an umrihi fima afna yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne nit bu ne cëpp yawmal xiyaam ñeent lañ koy laaj dañ ko laaj sa ndaw ci lan nga ko raatal nga nekkee ndaw ci lan nga jeexal sa ndaw léegi woon ne nekk ndaw dafa am solo xoolal bu ñu la laajee première laaj boobu ba nga tontu ñu laajaat la sa dund bi ci lan la jeex mais est ce que ndaw bokkul ci dund bi ci la bokk wala bokk ci la bokk lan moo tax ñu laaj ko pare laajaat ko pare ñu laaj ko kon ñaari yoon sa ndaw ci loo ko jeexal nga tontu ñu ne la sa dund bi ci loo ko jeexal lu mel ne ñaari bokk waaye booy xool nekkee ndaw mu ci biir dund bi waaye am solo gi mu am solo nga xam ne nit waru ko xowee nit waru ko caaxaane yàlla tabaraka wa taala mësta yónni yonent ngir mu nekk ndaw su ngeen demee ci histoire ibrahima alayhi salaam da ngeen di fekk keroog ba mu daanee xërëm yi dinañ ñëw bu ñuy joxe modèle yi gars yi lu ñu wax dégg nañ benn jeune sami'na fatan yazkuruhum yuqaalu lahu ibrahim waxal waxuñu faade waxuñu sami'na shaykhan lan lañu wax sami'na fatan dégg nañ benn jeune bu nekk ci quartier bi doon xas yàlla yi est-ce que du moom moo def lii kon mbokk yi nekk ndaw dafa am importance loolu moo tax islam di wax ne ndaw nañ ko préparé balaa mu fa yegg islam dafa préparé ndaw balaa muy egg ci waxtu ndaw lu tax loolu mooy booy xool islam yépp fa inna al islaama minhajun kaamil lil xayaati al fard wal ijtimaaiya wa annahu yatamassalu bi kaamilihi bi sababi al muslimina li annahum humul mukallafun islam boo koy xool bu doon téeméeri mbir la téeméeri yëpp ci kaw ndaw jullit la tegu moo xam bu góor la moo xam bu jigéen xale yu ndaw yi am na lu leen islam teggil màgget yi mënatul dara am na lu leen islam jéggal waaye ki am 18 ans jëm 40 ans ci l'islam baaluñu ko dara moom lu mu def rek day am bakkaar soo xasee am 18 ans wala ci yeneen yi nga xam ne mooy nattukaayu sharia yi sa poxataan sax na kawar gént nga sëy nekk ku góor bu dee jigéen gis na baax li ñu sant sa waajur bu góor ak bu jigéen lan la sant ci wàllu jaamu yàlla kon ci waxtu woowu sag ndaw islam def ko soxla mbokk yi wax naa sànq ne yàlla mësta yónni yonant mu nekk paa yàlla mësta yónni yonant mu nekk paa yonent yàlla yoon yëpp ay xale lañu woon ay ndaw lañu woon am na ñoo xam ne ci berceau te leen yàlla yónni ci berceau ñu nekk ay yonent am na ñoo xam ne biñ demee ba am ñeent fukki at la leen yàlla yónni am na ñoo xam ne ci seeni at yu ndaw ay ñaar fukki at ay fanweeri at ci leen yàlla tànn def leen ay yonent kon loolu boo ko doon xool ak ñun fii suñu gëmuwaay di nga gis lu wuute la parce que ñun dañoo gëm ne fii balaa ngay jaamu yàlla da ngay bàyyi ba màgget bu dee ku góor la mu commencé kenn jàkk bu dee ku jigéen la mu commencé mu waaye loolu moom du diine diine moom li mu xam mooy gis nga même bu dee ci julli la yonent bi ne murru awlaadakum bi salaa wa hum abnaa sabaa wadribuhum alayha wa hum abnaa asara muttafaqun alayhi yonent bi ne bi ngeen amee ay doom ñu am juróom-ñaari at na ngeen leen sant ñu julli suñu bañee julli ba am fukki at na ngeen leen caw waxuma la tey juróom-ñaari at waxuma la fukki at ñoo bañ a julli mais Sénégal ngay gis ko am vingt ans du julli te jullit la loolu buñ ñëwee ci pas-pas yu bon yi di ngeen ko xam ndax yor ngeen fi tarixa yoo xam ne du ñu julli ci ay jullit lañ wala yorewu leen ko mbokk yi islam lépp dafa tegu ci ndaw ndax yittewoo bu islam yittewoo ndaw xam ne li mu bëgg ay ndaw ñoo ko mën a defal loolu moo tax l'islam du diinay màgget ku bàyyi ba màgget dugg ci doo ci jële lu bari loolu tax gis nga wallahi bu leen yàlla dimbali woon ba ngeen aj jot yàlla may leen ngeen dem joxe ci seen farata ajuma su ngeen demee di ngeen gis lenn fii luy jógee Sénégal di aji genn gaal yëpp duñu aj billahi wallahi taala billahi wallahi wa taala yi leen lépp ci ñoom duñu aj parce que lu tax dinañ ko bëgg mais dañ koo munul dinañ bëgg mais duñu mën dañuy toog rek di yóbbanti ñi am xaalis ñoom dañuy toog seen ay immeuble di fay fay woo ay xale yu fa nekk ah bu dee ñenn ñu sawar sax nga xam ne bëgg nañ ci yàlla ñoom danañ dem lu la ñu pousse pousse toog ci yóbbu leen après ñu fay mais am na ñoo xam ne loolu sax du lañ ci def dañuy ñëw ne la boo demee nga sànni waa leen ma rek dina ci am ñoo xam ne danañ dem ba ñëwaat benn yoon lañ julli ji kaaba ga benn yoon li ci des yëpp jàkk yi ñuy dendal seen seen dal yi jàkk yi ñuy dendal ba la ñuy julli demaat yéeg toog ku julli jot dañuy ñëw julli seen ak jeex na lu tax parce que dañ ko dul mën coono gi mu laaj mënuñu ko place yëpp ay romb la ñuy def ay romb ku ñu war a fanaan ku ñu war a fanaan da ngay gis koo xam ne dafay def ay waxtu da dem ñibbi lu tax parce que màgget la mënu ko loolu tax l'islam ku toog ba màgget ngay da ngay ñëw pour jaamu yàlla rek da ngay am jafe-jafe te mooy li ñu dal fii balaa ñuy jàng diina xaar ba màgget nga nekk ci say business ba nga xam ne léegi nag yow retraité nga nga doog a ut benn benn téere bu ñu traduire français ut benn waaye bu la ci jàppale ay quelques jours nga commencé dem jàkk léegi nag bëgg a nekk nag julli fini fekk sa trop tard yenn saa yi sax nga gis koo xam ne deux mois lay def ci jàkk ji rek dee deux mois rek lay def dee fekk dund na soixante dix ans soixante dix ans yëpp mu ngi woon ci ay caaxaan gëstuwul woon diine jàngul woon xamul dara bu gisoon nit di julli sax da koy def problème léegi nag léegi day toog ba màgget nekk góor wala jigéen bu dee góor ñi sax a tane te bu dee jigéen allahu akbar léeg-léeg nga gis koo xam ne day day am jëkkër ba jëkkër ji faat ñu koy jàngal lu ñuy jàppee jour bi jëkkër ji faatoo ñu suuli ko ñëwaat nga gis ñu yóbbu ko naan ko da ngay raxas la ko ñetti yoon da ngay gàllax ni ko ñetti yoon di ko jàngal sa yaram day daw mbokk yi lislaam dafa yittewoo ndaw li leen di wax loolu mooy keroog ba yàlla yónnee yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam yonent bi bàyyi ko xaaru xiraa dem këram fekk fa xadija ak jafe-jafe yu mu am ba mu ànd ak Xadija ñu dem ci Waraxa Waraxa ne ko xamal ko ne yow de yonent bu mujj nga dana nekk ci xeet wi waaye li ngay wax de bis boo ko fi waxee danañ la génne dëkk bi waaye nag ak a neexoon ma nekk ndaw kon dinaa taxaw jàppale la donc lu mu doon bébét mu nekkaat ndaw tey boo doon dugg ci kër yi di laaj paa yi lan ngeen bëgg a nekkaat da ngeen di paa bu ne allahu akbar tey tey su ma nekkaatoon xale su ma nekkaatoon tey ndaw ñun ñii sax rek ñun ñii fii toog fii am na ñoo xam ne booy na sama waay bu la yàlla war na déwlem nga ni fii allahu akbar kon gis nga looy rëccu la boo ko passé looy rëccu la kon boo ci tollee bul ko fowee fexeel nga jaamu ci yàlla parce que dañ koy laaj ëllëg yowmal qiyaama ji mbokk yi ñetteelu tomb mooy lan moo tax pas-pas yu bon yi am tey lan moo waral lool lu tax suñu pas-pas yi baaxul tomb boobu danañ ko tënk ci juróomi tomb yu lëndëm yoo xam ne moo tax tey nit ñi réere seen diine nit ñi réere pas-pasu l'islam parce que juróom yi moo baaxul moo wérul ci ñoom loolu moo tax seen pas-pas mun tëwee bi ci njëkk mooy aljahlu bil kitaabi wa sunna wa asalibi lughati al arabi bokk na ci li tax tey nit ñi seen pas-pas yi nekk pas-pas yu bon mooy réere gi ñu réere alquraanu yàlla bi ak sunna yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ak réere gi ñu réere làkk arab loolu mooy toog mu alquraan ku ko xam mais sa pas-pas mënu ta wér sunna yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko xam sa pas-pas mënu ta wér nit koo xam ne comprendre arab sa pas-pas mënu ta wér lu waral loolu parce que diine ji ci arab lañ ko wàccee alquraan lan la quranan arabiyan léegi na nga gis les grands mooy xalif général bu jàngul alquran jàngul sunna déggul arab toog lu muy yóbbu nit ñi ah ñu ne ma maa ngi fàttaliku ndeysaan ay journaliste yu jóge woon ko rek ñëw ziarali benn xalif général suñu waxee mu ne naam naam naam kaay na ko yaa seydi naam day sa bi jaar ñi bi mu ne ñii buñ fi ñëwati ñii xalif général la wax islam nga jiite islam fekk yow alquran xamoo ci dara ku la tegal téere bi ne na nga ko tafsir wala juzu am ma sax mu ko tafsir ba pare nga bëgg a jiite l'islam alquran moo ñëw di leeral pas-pas yi alquran moo ñëw di ñu wax fan la ñuy teg suñu tànk kitaabun anzalnaahu ilayka li tuxrija annaasa min azulumaati ila nuur léegi nag yow nga bëgg ñëw téere boobu nga jiite ñi ciy dund te yow xamoo ci dara ñi nga jiite yan pas-pas nga leen nar a teg lan nga leen nar a gëmloo xoolal fii bokk na ci tey am na ci yan tarixa yi boo ciy dugg dañ naa la bàyyil alquran tamaman bu liir alquran waxuma la loolu mais am na ci tarixa boo xam dama ne alquran rakkal la nal nañ ko ba mu set génne diw gi rakkal li may wax ni bu ngeen dégg ngeen ko ba sonn yéen moo ko gën a am imaginel jullit bu gëm ne alxuraan rakkal la kooku lan la nar a dund ah mu koy jullee di ko def ci léppam ba pare mu gëm ne lii day benn xott bu fi nekk lii rek la ca baaxoon yépp diw dindi na ko moom la defaree leneenam gëm loolu am na ñoo xam ne gëm nañ ne nga xëy jàng leneen moo gën nga xëy jàng alxuraan parce que loolu moo ëpp alxuraan barke te kat loolu ñuy wax nee nañ ci alxuraan lañ ko jëlee ñenn ci ñun gëm ne alxuraan moom téere barkeelu la rek barkeelu mën nga am kaamil mais tegal sa bi sa bibliothèque boo xëyee raayal wala nga def ko téere muslukaay muslu muslu mooy boo tiitee rek dawal tey da nga def ñu ne xam nga fay fan yi phénomène bi xew mooy da ngay jékki-jékki rek gis ay kër yu tàkk nga def ñu ne jël leen alxuraan wàcce leen fi kaamil jàng leen fa juróom-ñetti inna anzalna wala jàng leen fa fukki yaasin wala téere barkeelu téere làqatukaay waa ji bu tabaxee kër moom balaa muy toxu day ñëw ci koñ bi daal di laaj imam ne ko dama bëgg ku ma wàcceel kaamil mu ne ko GIE baa ngi GIE groupe kaamil ñaata la ñuy fay mu ne cinquante mille ñu dajaloo jaam alxuraan bi ah ñu ne kër gi jin fekkoon na jinneñ fi jinne ja daw na waa ji doog a toxu si ñëw bu fekkoon ne waa ji benn chef d'entreprise la bu ñu nar a auditer day ñëw moom it ut ñu ko jàngal kaamil ci bureau bi pour ñu koy audité buñ ñëwee buñ gis dara ñun loolu loolu mooy suñu problème ci alquran kon tomb bu njëkk ci ñun bi tax suñu pas-pas mënta wér mooy aljahlu bil kitaabi wal sunna wa asalibi lugatil arabi dañoo réere alquran réere sunna yenent bi waaye réere làkku arab bi ku réere làkk bi nga xam ne ci la alquran wàcc sunna bi nga xam ne moom la yonent bi doon leerale alquran xamuñu ko jéemuñu koo jàng gis ngeen fii lan la ñuy jàng fii bañ nañ ko sax ba boo déggee arab doo am doo liggéey maa ngi fàttaliku ndeysaan amoon na benn ministre bu fi nekkoon da daan wax ne ku jàngi arab day bu yeboo rek nga continuer toog koo bul dellu si Sénégal de ndax fi amaluñ la place wala daan wax boo ñëw di ñaan bourse bureau de bourse di ñaan bourse danaan la waaw boo demee rek mën ngaa toog toog puisque fii moom jarul nga fii dellu si parce que ñun soxlawuñ la amaluñ la loo def di pour décourager la nga bañ ko jàng wala te arab foog ñu jàng lan moo tax ñu koy jàng du pour nekk arab de mais pour nekk ay jullit pour dégg diine parce que sunu sunu jaamu yàlla bi ñuy jaamu yàlla nii kan mooy taxaw di julli nekk tukulóor ne war a wax allah war ne allah ko mawr wala yàlla ku màgg la du dem xam ngeen ne mustahaabu sa kii Moustapha Kamal Atatürk jéemoon na ko ne bu fi kenn julleeti wala ngay da ngay làkk arab kuy julli na nga wax làkk dëgg ba ñu commencé ko parce que affaire bi làkk kese la mais du làkk yàlla moo ne maa wàcce alquran def ko arab kenn mu ci ñun mën ta julli lu du day jàng day day làkk arab alquran ngay wax ci say ruko ci say sujjóot ci say lépp pour nga wax arab arab boobu nag bu fekkee comprendre lu ñu ko pour nga firi alquran pour nga firi sunna yonent bi alayhi salatu wasalaam foog nga maîtriser dara ci arab kon réere gi ñu ko réere loolu moo tax pas-pas yi mën tawir ñaareel bi mooy réere gi ñu réere manhaju salaf yoonu ñu njëkk ñi ñu yonent bi nekkaloon ñu àndoon ak yonent bi alayhi salatu wasalaam muy saxaaba yi ak ñu baax ña mu nekkaloon ak jamono ja leen toppoon ak ña ca toppoon réere gañu leen réere loolu moo tax pas-pas si buñu tawér dama leen di laaj ndax ci jamono yonent bi alayhi salatu wasalaam yonent bi ñi mu dajale woon daa la leen woon yàlla ban saxaaba la yonent bi wonoon yàlla na ko yàllaa ngi nii gis nga ko wala da ngaa bëgg a gis yàlla mu ne waaw mu ne ko jëlal kurus gii dee ko wirdu boo ko waxee juróom-ñaar fukki rek léegi yàlla ne dareet sa kanam ban saxaaba la yonent bi waxoon da ngaa bëgg dugg àjjana mu ne waaw mu ne ko bàyyil julli yoon wu gaaw waaw kan la ban saxaaba la yonent bi waxoon sala salaam da ngaa bëgg dugg àjjana mu ne waaw mu ne ko bàyyil koor bul woor del joxe ndogu rek boo bu ñu wooree ba ngoon rek ba xalal kinkili baa nit ñi rek nga leen koy jox après yow direct nga dugg àjjana ban saxaaba la mu nga réere ga ñu réere manhaju salaf yi loolu tax na tey pas-pas yu bon rek moo am ci dëkk bi ay nit ñoo xam ne lu leen neex gëm xoolal alquran ne yonent yàlla muhammad mooy yonent bu mujj ñun fii boo demee fii rek fii boo jéggee tali bi autour bi boo ko jéggee balaa nga yeggi géej gi am nañ fa ab yonent te yonent bi waxoon na yonent yàlla yàlla waxoon na ne yonent muhammad mooy yonent bu mucc maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah walan wa xaatama nabiyin moo mottali yonent yi yonent bi ne laa nabiya baadi wala loolu hadis yonent du am sama ginnaaw ñun ñu am ay yonent yu dul jeex pas-pas boobu fu ñu koy teg alxuraan ne dañ julli ñu ne duñ julli alxuraan ne koor ñu ne duñ xoor alxuraan ne nañ aji màkk ñu ne màkk jarta dem màkk day màkk day wax dëgg yàlla jarta dem ndax la fa nekkoon moo tax kon ñàkk gi ñu ñàkk comprendre mbir yi loolu moo tax ñu am ay pas-pas yu bon parce que ku jóg wax rek ñu gëm la bu fekkoon ne alxuraan bi leer na alxuraan moo ne la julli benn waaye ñëw ne la bàyyi julli da ngay dem àjjana kon da nga naan ko da ngay fen suñu benn borom xam-xam daf ñu doon wax ne jullit jullit ñi li tax ñu nax leen mu ne leen lañ bàyyi mu ne tey kenn nit ñi bu demoon ci bitig bi di jënd ceeb jigéen bu demoon ci bitig bi di jënd ceeb nga ñëw ka fay jaay ceeb ne la ana sa leket nga ni ko mi ngi nii mu ne ñaari ngay jënd nga ni ko kilo mu daal di dugal ñaari loxo biir saako bi rek tëdd ne la ana leket nga ni mu ngi nii mu def ci ne la demal eh loo koy wax peese ko du la nga koy wax de mu ne la mën na nga ne ko xoolal gis nga moo fontoo peese ko li tax yow bu ñu la waxee benn wax doo ko peese peese place ñaata plate la am ñaari plate la am de ah jullit peesekaay bi la yàlla jox ñaari plate la alquran ak sunna mooy ñaari plate yi ngay peese lu la waay mën ta wax def ko ci balance yi kenn yow ne la ah ñun de ñun de wax dëgg yàlla julli moom dañ ñu koo teggil nga ni ko wax nañ ko peese du ubbil kaamil bi léegi nga gis ab aaya ne wa aqimu salaa nga ni ko déet aiguille bi bañ na da ngay gis aiguille bi parce que boo boo demoon tey di jënd ceeb ñu tegal la matul da ngay gis aiguille bi daal la nii non non matul non non bu matee rek mu ne ku ci taxaw ci digg bi nga ne ko dëgg la nii. jeex na léegi nag ñun dañuy wax benn waaye day ñëw wax lu ko neex au lieu gars yi ne ko peese ko dañuy yuuxu di jooy naan ñu ne dañu ne dañoo daanu leer ii di salleeru di mbëkk ay du kenn xamul loolu mooy suñu problème. jullit dafa war di peese luñ la wax ndeysaan kenn yàlla yërëm kenn ci salaf yi nee na ñun daawuñu laaj dalil mais ba ñu demee ba mbir mi leer ñu commencé naan sammu lanaa rijaalakum al isnaadu min ad-diin lawlaa daalika la qaala man shaa maa shaa moo tax dalil foofu mu am ci diine bu doon lool dama ñëw fii rek daan ne yàllaa ngi leen di nuyu recevoir na ma lii ah non ñu ne est-ce que ma ne dajale leen addi yi ma dem ma yàkkamti ah du loolu du loolu nag yàlla nga lay nuyu ñu ne yow ah dañuy jël bi yow boo ko gisee di kenn la bàyyi nga dem dañ la war a la ngaamu dañ la war a la ngaamu laaj la dalil boo ko gisee fan la la recevoir ah waaye nit ñi alku nañ ci alku goo xam ne tey benn waaye ñi mën a wax léegi rek léegi laa bàyyi ko ci moom la nga gis ku yuuxu ñu ne dëgg la dëgg la waaye gis nga yuuxu ne dëgg la loolu day wane noonu dëgg la kon du loolu mbokk yi ñaareel bi tax suñu pas-pas yi yàqu mooy ittibaa'ul hawa topp ba neex xam nga mbir mi dafa neex naanal sàngara balaa muy egg sa put dinaa ko soppi meew waa ji teg butelu sàngara teg kaas di naan nga ni ko yow sàngara ngay naan mu ne non na benn ñaan boo xam ne dañ ma ko jox balaa su ma ko waxee rek balaa sàngara bi dégg suma kut day nekk meew mais xam nga loolu yooyu loolu itibaaul xawaa la topp bànneex kese la wala nga gis diine joo xam ne dañuy jaxasoo fecc fecc ba ñax tooy boo nee li lan la ñu ne non de fecc bi dañuy yëngu mooy itibaaul xawa afara ayta man ittaxasa ilaahahu hawa tey dama yenn di seetaan télé bi ma gis ñoo xam ne dañuy woote diine suba ba léegi ñu ngi fecc ma ne waaw diine bi moom te nag gis nga nit ñi fu xumb rek am caaxaan yi rek nit ñi foofu la ñuy def billaay wallaay diine bu xumb am ay caaxaan loolu tamit bokk na ci li tax pas-pas yi mën ta leer ku topp ba neex pas-pasam du leer mukk moo tax gis nga alxuraan bi mu ñëw li mu njëkk a tere mooy topp ba neex yàlla mu ne attention ba neex yàlla la ku ko topp rek yàlla ba neex ngay jaamu mais jaamoo yàlla yàlla bégal ku bàyyi say ba neex topp moom li mu indi fa amma man taxa wa aasara alxayaata dunia fa inna aljahima hiya almawa wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa inna aljannata hiya almawa yàlla mu ne képp ku topp say bànneexi bakkan topp adduna di def loo neex oo dee rek ma lakk waaye képp ku xeex ak sa bakkan képp ku ragal dajeeg yàlla ba nga noot sa bakkan poñe ko moo tax bu sëriñ di wax an nafs ka tifli mu ne bakkan mu ngi mel ni liir soo ko poñewul feral ko soow gis ngeen yéen ñi toog fii bu ñu leen feralul woon ba léegi yéen a ngi wax mama toogal ma nàmb dafay dem conférence dox léeg-léeg nga gis xale bu naan yaay soo ba léegi yaa ngi wër toogal ma nàmb nag allahu akbar est-ce que du tax est-ce que dañ koo feralagul ba léegi mais xale bi gis nga boo ko feralee ni muy sonnee guddi yu njëkk yi léeg-léeg sax xale bu jigéen bu feralee doomam da koy da koy yóbbu ci maamam pour moom mu noppalu bakkan noonu la mel bakkan da nga koy poñe teral ko ci mooy yàlla tabaraka wa taala donc mais weeru koor su ñëwee lan moo tax ñuy woor mbokk yi ah dañuy poñe suñu bakkan pourtant lekk gi dafiy nekk ci frigo bi wala nekk ci bitig bi wala nekk fu nekk ndox mu sedd maa ngi nii mën ngaa wéet kenn mën ngaa lekk ba suur yendu ci àll bi naan ba màndi nga ñëw mais doo ko def lu tax parce que da ngaa poñe sa bakkan ne ko fal force nga jaamu yàlla weer yi ba mu jeex tàkk doo fi lekk doo naan lu dul ci heure yi ñu ko daganal gis nga ñàkk gi ñu ñàkk a xeex ak bànneexu bakkan loolu tax na pas-pas yi tey mënta wér lu tax parce que nit ñi nga xam ne dañoo bëgg seen bànneex di dund nit ñi nga xam ne dañoo bëgg foo su caaxaan wootee rek dañuy dem gëm caaxaan boobu benn góor doomam da doon ngénn mu ne kër gi kenn du fi musique xale yi wax wax wax mu ne leen kii kenn du fi musique parce que yéen da ngeen di ngénte ba ma leen di ngénte musique lu ma la woon kon il n'est pas question kenn ci yéen am doom sama kër la fii en tout cas ku mën nag da nga jël sa jabar ak sa doom nga dem fu la neex nga luye fa wala nga dëkk fa nga musigal sa bopp te su boobaa man du ma ñëw waaye daal d'accord ñu dem uti benn kaset ay jàng yu am tabala benn waaye bu tudd Mbay Njaay Saam allahu akbar gis nga bi ñu ñëwee ba branché seen tabala yooyu góor gi dafa jékki-jékki daan ne musique leen ndax la mu doon tere dafa gis lu ko gën a garaaw ci ay pàkkar ñeeg fecc ak tabala jaxasoo góor ak jigéen mu xool xool xool xool ba ci yàgg mu xam ne lii bu ko teree dañ naan ko hey dimbali ñu lii du musique waaye lii moo gën a xumbale la mu doon tere te ñi leen ñu doon tere la la ñu leen doon tere am nañ ko ci biir lii ñu ne dafa dagan wala leen woo ba ñëw mu ne waaw kon léegi mun ngeen am musique loolu yëpp li ko waral mooy topp bànneexu bakkan amul fenn fu ñu jànge ci lislaam fu dul ci jéeg fu ñu daganele tabala amul imagine leen tey laa ilaha illa allah loo fi gis ñuy tulli rek ay ndënd laa ilaha illa allah ngi ci ba pare nag li garaaw mooy nga gis ay jullit yoo xam ne ñu nee nañ lii diine la depuis neuf heures ci guddi ba cinq heures du matin ñi ngi fecc rek di yuuxu rek di fecc di yuuxu rek ñiy tëgg rek ba ba ba fajar jot kenn du julli ji loolu mbokk yi bànneexu bakkan topp bànneexu bakkan weesuwul loolu li tax pas-pas yi mënta wér mooy bànneexi bakkan yi nit ñi topp ñetteel mooy atta àlluko bi subahaat lu lënt yi yi lënt nit ñi dañuy ñëw fekk lu leer nañ alxalaalu bayin walxaraamu bayin wa baynahuma umurun mutashabiha yonent bi nee na li li dagan leer na nañ li araam leer na nañ am na ci diggante bi ay mbir yu lënt nga gis gars yi dañuy ñëw lu lënt yooyu moo leen intéressé li dagan a ngi nii de voilà yàpp a ngi nii boo xam ne léegi-léegi lañ ko yekk xam na lu leer na sàngaraa ngi nii yëpp xam nañ dafa araam benn waaye ñëw fekk benn ceeb boo xam ne depuis démb la woon mu ñëw naan mais ceeb bi moom est-ce que dafa mel ne forox naa ak foroxul de est-ce que su ma ko tàngalee ba heure bi gën a tàng nii ba ma ma sotti ci kaani jaxase ko est-ce que dinaa ko mën ku gis lii ñu yekk léegi-léegi lu muy dee ceeb bu fi fanaan nit ñi noonu lañ mel moo tax fi nga gis problème yépp ñu naan fii lu lënta fi nekk da ngay gis nit ñi daw fa la ñu loolu la ñuy jëf yi pour lan pour làqatu ci pour def li ñu leen neex yooyu mën nga cee jotee misaal yu bara bara bara xam nga doo ko gis mu ku yow suba naan la gis naa Ablaye Wade dama Ablaye Wade démb sama kër la fa naan xam nga doo mosu ko gis ku la ko bu fekkee kenn ci yéen am na ku ñu ko fi mos a yëkkati sa loxo kan moo fi mos a yeewu ne du loolu noonu démb Ablaye Wade sama kër la fa naan quoi ñoom bokk la mus na leen ko wax yéen jigéen yéen góor ñi mus na leen ko wax mais gis ngeen waaye rek démb booy gis naa yàlla ngeen commencé discuter nag xam ngeen fan ngeen jëm 4 heures du matin bu fekkoon ne midi la 4 heures du matin ngeen jëm dara du leer léeg-léeg nga gis sax ay nit ñi ñëw di rali ci waa ji naan dëgg la dëgg la mun na nekk ah mun na nekk yow da nga naan yaa ko mënul mais mun na nekk waaw allahu akbar allahu akbar ata àlluq bi subahaat maa dugg ci yu lënt ay caaxaan yu lëndëm yoo xam ne dara leeru ci nga ñëw na ci patax bëgg ko di ci woote di ci yóbbu doomu aadama yi ñeenteel al itimaadu alal aqli al itimaadu alal aqli al mujarrad mun naa sukkandiku ci xel xel xel et gis nga xam ne diine bi xel la xel il paraît nangam mën na nekk ñu ne waaw mu ne ah kon kay leer la wala sukkandiku ci xel imam ali nee na diine du xel maa diine ay texte la mu ne bu doon loo bu doon diine xel la yow mii masaa sa tànk ngay masaa sa dàll wala ngay masaa sa xuuf fan ngay masaa ci suuf wala ci kaw bu doon xel la fan moo am contact ak suuf si du ci suuf waaye mu ne xoolal ci kaw ngay masaa beneen bi mooy bu doon diine xel la yàlla du woo Moussa ba tuuri Siina mu ne ko loo yore mu ne ko yat mu ne ko sànni mu sànni mu nekk jàng mu ne ko xusha foofu Moussa lan la war a utiliser pour mu téye ko ñu ne la lii jaan la nga xool ko muy jaan di yëngatu ñu ne la téye ko foofu xel nga utiliser wala iman iman la utiliser moo tax mu téye ko mu nekk yat mais bu doon xel xel lu mu la wax dafa am benn góor bu bu amoon jabar ju rafet mu ne mu ne doomam bi dafa am jabar jabar ji am doom doom ji nekk xale bu jigéen bu rafet mu ne moom jarbaatam la koy may mais balaa mu koy may jarbaat bi dafa bëgg jarbaat bi def benn mbir moo xam ne dëkk bi yëpp dañ naan jabar jarbaat bi jàmbaar la moo tax buur bi may ko doomam mu daal di woo jarbaat bi ne ko gis nga yeew bi jaan bi ñàngoor bi mu naa mu ne ko gis nga ubbil gémmiñ gi waa ji xaw a kii mu ne mu ne mu ne gaa yi ubbil leen ma gémmiñ gaa yi ubbi gémmiñ gi mu ne ko dugal sa baaraam mu ne am na bëñ mu ne amul benn bëñ mu ne gis nga dindi naa bëñ bisu sàngam dama koy sànni ci digg géew bi su ma nee ana jàmbaar jàmbaar bi ko rey dinaa ko may sama doom rek mën nga jóg jël sa paaka rek songu jaan bi rek def yi fu géer yi rek bërëmu rek daggate ko ñetti dagg ma may la ndaw si ñu xam ne jàmbaar la ëllëgu si biir boo ma doon nee ñu ne yow jàmbaar la mu ne garaawul mi jaay am vingt problème ah buur bi daal di tëgg ndënd bi yépp ñu muy indi doom ji teg mu ne gis ngeen sama doom ji jàmbaar laa koy may kan seen mooy jàmbaar ñu bëri yëkkati loxo mu ne ah loolu dafa yomb pour ma xam jàmbaar am na lu ma denc dama koy génne léegi ma sànni ko fii ci digg bi ku ko rey rek ma may la rek mu génne jàng mu ne nii jarbaat bi xel mi na jarbaat bi xel mi naan ah sama nijaay mi dafa bëgg a alal de dafa mel ne bii moo gën a gàtt de boobu daa mel ne moo gën a gudd de boobu daa mel ne bopp bee gënoon a ndaw de gis nga xel mi toog di xalaat ah lii est-ce que wóor na est-ce que lii du plan benn waaye riir fële rek daggate jaan jo ñu may ko ndaw si diine du xel toog rek organiser say mbir ut say nangam ak nangam daan ne gaa yi àjjana ngeen jëm ci sa xel teg ko ci sa xel gis nga chaque jour ma wax gaa yi nañu jàng aaya bi nekk feewu suratul kahfi suratul kahfi ay aayeen fa ku bañ a al ko ku ne war nga ko bind en en or daal di koy teg ci sa sa kaw sa bopp la soo tëddee nii sa bët bi ci tëdd aaya bi la mooy lan mooy qul hal nunabbi'ukum ñëw leen ma xamal leen ma xabaar leen ñi nga xam ne ñoo gën a perte ci àdduna lu tax allazina dallat saayuhum fi lxayaati fi lxayaati dunia wa hum yaxsabuuna annahum yuxsanuuna amala gis nga ñoom dañoo jàpp ne lii ñuy def lu rafet la yàlla bëgg na ko fekk dara baaxu ci mais ñoom seen bopp dañoo gëm de lii lu baax la xoolal tey ci Sénégal ay mbir yu ñu tuddee lu baax nit ñi di ci sonn daw léeg-léeg nga gis ku ñëw joxe ci deux millions di jooy di yuubu naan lii sax man na ko koo xeeb sama jaar fekk dara la ci amul lu dul perte pëndëg poussière wa qaddimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansuura pëndëg poussière amoo ci dara te dañ koy tuddee ndeysaan lu baax parce que lu baax du nekk lu baax lu dul yàlla tabaraka wa taala santaane ko yonent muhammad saa sallam jàngale nuñ koy defee loolu mooy lu baax naa leen joxaat beneen misaal ne diine kenn ko teg ci xelum kese xelum kese xel baax na ci diine de waaye nag du kese kese tey buñ ne woon dañ julli tàkkusaan tàkkusaan ñaata rakka la ñeent benn waaye ne man damaa bëgg tiyaaba juróom ñetti rakka laa koy julli ndax yàlla fay ma julli na wala julliwul du ma kenn julliwul de du ma kenn julliwul julli na wala julliwul julli na mais est-ce que day am jaabu donc kenn du ko fay misaal boobu dafa lëndëm xaaral ma wàcce ko ba ngeen dégg ko kenn ci yéen bu yóbboon ganilaa ci téye bi ne ko defal ma ko trois morceaux mu dem ñëw ko ndoket ñëw na ko wala ñëw ko ah ñëw na ko wala ñëw ko est-ce que di nga ko fay du tax doo ko fay parce que li nga ko sant def ko gis nga dafa yomb yàlla ne la dafa lii nga ne waaw yàlla de moo ko sant waaye yàlla ni mu ko bëggee du ma ko defee moom xaaral ma def ko ba mu gën a rafet maanaam ñeent la moo xaaral ma def ko juróom-ñett xam na ko fan la yor yàlla du la fay parce que lu tax li mu la sant dafa ko noonu du la fay mu tax gis nga diine dafa yomb yow mën nga cee génn lu yomb lii nga def lu tax nga def ko nga ne ko nii la ko yonent bi defe woon jeex na moo tax yonent bi ne sallu kama raaytumuni wa salli jeex na barki dem benn waaye def ñu wax graw dañ doon waxtaan ak moom mu ne ñu ko julli wàcce loxo boo julli ñu ne ko li nga wax graw na de mu ne da ngeen may déglu rek parce que ko julli yëkkati sa loxo ni nii allahu akbar ba ni nii am na julli boo gisoo kii def loolu loo koy wax mu ne ah da nga naan kii day caaxaan mu ne bu ne allahu akbar ne nii looy wax da nga naan kii day caaxaan mu ne lu fi indi lii yonent bi defu ko acca tontu leen bu dee ku nii caaxaan kat la nii caaxaan kat la lu fi indi nii yonent yàlla Muhammad defu ko na xel yi naaj ñaata hadis est-ce que am na bu wax na nañ def nii est-ce que am na bu wax nañ def nii est-ce que am na boo xam ne jëm ni yow jàll wax ne ni la doon def sallallahu alayhi wa sallam jeex na moo tax gis nga diine du xel diine du xel diine ay texte la yu yàlla wàcce jox ko yonent ne ko jàngale ko moo tax yonent bi ne wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min ahadakum hatta yakunu hawaahu tabaan lima ji'tu bihi kenn ci yéen ngëm yàllaam du mën a mat lu dul dafa bàyyi ay bànneexu bakkanam topp man muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ma indi da ngeen di bàyyi bànneex yi bàyyi bànneex yi bàyyi caaxaan yi ngeen di fekk topp li yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam indi diine ji doog a wér mbokk yi juróomeel mooy taqlidu suyuux ad dalal alladi yu addi bi saahibihi ila taassub bokk na ci li tax pas-pas yi bon mooy topp ay kilifa diine yoo xam ne dañoo réer di réeralaate ba pare waxuma ñu yem ci réer di réeralaate waaye dañuy indi far farloo ci diine ji di créer ay mbir yoo xam ne amaluñ ko dalil ci alquran ak sunna lii bokk na ci li tax pas-pas yi mënta wér xoolal Sénégal saa yu xëy rek nga dégg groupe bu bees saa yu xëy nga dégg ku bees kuy woote nga gis leneen lu bees loo xam ne xamoo ko woon waxuma la sax mais dangay gis ay tëni tëni yére yu bees yoo xam ne waajooju bu créer mbooloo ba pare da leen di utal yére yu ñu sol léegi sax waxuma la dara waaye am nay façon mbax ne boo gisee mbax ne bi rek xam ne kii foofu la bokk am nay façon kurus waxuma la dara sax mais ci tuddinu yàlla bi sax di wax laa ilaha illallah su ma ñeme woon léegi damay dugg damay dugg ci ci ci ci façon zikri yi kon su ma waxee benn rek ngeen xam ne bii ñoom diw ñoo ko moom lu waral loolu mooy ay kilifa yuy réeralaat yonent bi waxoon na ci mandraga yowmal qiyaamati mu ne innama axaafu alaykum a'immati almudillin wa ida waqa alaykum sayf lam yurfa ila yawmi alqiyama li ma ragal ci yéen mooy ngeen am ay njiit yuy réeralaat loolu lañ am tey ay njiit yuy réeralaat ah di dugal ci diina ji loo xam ne yàlla tabaraka wa taala yoonalu ko yonent bi santaane wu wala tey bu ñu demee Sénégal ñuy takk sëy benn waaye ñemee jàpp ay jigéen dajale leen ak ay góor daane yaa Muhammad yaa Muhammad yaa Muhammad yaa Muhammad yaa Muhammad tëtëtë dem leen dagaan Muhammad li muy sell sell turam bi li muy neex neex moom ci boppam daawul takk sëy di di ko takkee ci turam wala Aboubacar est-ce que daan na takk sëy ci turam Omar nag Ousmane Ali waaw léegi nag lu ko indi Sénégal est-ce que sax Serigne Touba daan na takk noonu sëy Alaaji Maalik daan na takk noonu sëy moo tax ñun dëgg dëgg daal sunu mbir war jar naa seetaan imagine léegi doomu aadama yi nga xam ne dañoo nar a dund ci loolu ci sëy bu mel noonu loolu kuñ ci takkal jabar foo jëm nga nar a jël jabar ju mel noonu dundundoo ak moom mbokk yi ay mbir a ngi ni yoo xam ne jar naa xoolaat bokk na ci li tax pas-pas yi du mën a wér du leer mooy topp ay kilifa yu réer ba pare di réer a laat waaw kilifa yu réer di réer a laat yoo xam ne xamuñu dara ci diine léeg-léeg nga gis ci sax koo xam ne taalibe bi ko gëm day faatu mu ñëw ñu koy xaar mu ñëw ne defar leen sàpp ñu defar sàpp mu ne li xam leen ñu ne dafa aalu dafa aalu wala ñu nga xamul dara ñu ne dafa aalu dafa aalu dafa aalu ah ban aalu kooku xamul dara julli néew amul li xam wala la nga gis mu def dara ci diine loo xam ne dafa yàq lu fi yeneen ci bi indi woon ñu ne non c'est que ay façon yu bari la yéen bii ngeen gis mbir yi zahir la ak baatin yéen baatin bi ngeen xamul du dëgg lii mooy suñu problème lii moo tax pas-pas yi mën dëgër saa yoo nee yonent bi nee na nii nga gis benn waaye bu indi dara ne moo moo ngi nii diine mooy lu yàlla jox yonent bi yonent bi moo ko doon jàngale ku fi indi leneen rek ay caaxaan la diine gi mooy lu yàlla jox yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam képp ku fi bàyyi nag li yonent bi indi woon nga dem ci leneen ci caaxaan nga nekk te balaa nga koy xam rek nga dee balaa ngay xam ne caaxaan nga nekkoon nga dee kon mbokk yi loolu moo doon ñaareelu tomb mooy moo doon lan moo tax nit ñi seen pas-pas mënta wér mooy juróomi mbir yi ñu leen limal moo tax pas-pas yi mënta wér ñetteelu tomb mooy ay modèle ci ay nit yoo xam ne ay ndaw yoo xam ne yàlla tabaraka wa taala yónni na leen woon seen jamono ñu ñëw fekk fi ay pas-pas yu bon ñu ñëw taxaw xeex ba pas-pas yooyu dajjeeku loolu buñ ci lim danañ jël yonent yàlla nuux alayhi salaam nuux bi mu ñëwee nekk na ci kaw suuf junni at yu manqué juróom fukk pour defar pas-pas lan la fi fekk fekk na fi ay nit yoo xam ne dañ doon jaamu xërëm xërëm yooyu lan moo ko waral mooy ay nit ñu baax ñu fi nekkoon génn àdduna ñu defar seeni photo defar seeni estati samp leen ca place yan doon jaamoo yàlla di leen jaam noo bi mu ñëwee loolu la fekk noo tëral programme pour dindi fi loolu ban programme yàlla moom nettali barnaami ji noo xam nga ñun bis bu nekk moo wax leen bis bu nekk bu dégg bëccëg moo wax leen ñun bokk na suñu daawa lu tax du dem tan ngeen di def waxtaan yéen ah waxuma dimanche de dama ne kañ ngeen di def waxtaan kañ programme bi kañ la du ngeen doon da ngeen ragal wax leen kañ la dimanche ba dimanche wala quinzaine wala ah wala weer wu nekk benn yoon bu dëgg yoon yàlla nu xool leen programme da'awtu qawmi laylan wa nahaaran al laylu wa nahaar al alan wal israar guddi ak bëccëg lépp muy woote guddi ak bëccëg yéen balaa ngeen di woote dimanche ba dimanche te balaa ngeen di ñëw ku nekk day añ ba suur tëdd këram naan ataaya ba biir bi toll ni R4 mu dugg ñëw gis nga moo tax sax ñu ne ki ma doon wax mu ne oustaz bul teel a ñëw de waaw ba ba ba ñu di leen taag sax ba pare quoi jarul ngay teel a ñëw jarul ngay teel a ñëw mooy waxi la est-ce que mbooloo mi nii la toll ana mbooloo mi am na ñoo xam ne boo demoon léegi fekk leen ñuy seetaan football bu fekkee làmb am na tey bala li ma gën a diital mooy yenn saa yi am programme rek damay jëkk ji ñu wom ñu ne ñu ne non bul ñëw parce que dañoo fàtte ne calendrier bi dañoo juum quoi il paraît jiw ak jiw dañuy bëre tey inna lillahi wa inna ilayhi raji ay làmb léegi tax ñuy fomm daaw bi làmb ak ay football ak maa ngi fàttaliku benn ay nit ñoo xam ne dañoo programme woon ñu ne non calendrier bi léegi dañ koy aj parce que coupe du monde bi la quoi nañ aj calendrier ba coupe du monde bi jeex yéen yàlla nu di woote guddi ak bëccëg yéen yéene ko wax léegi de alquran aaya bi lay jàng daawtu qawmi laylan loolu witiri summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israaran waxul gud waxul guddee bëccëg mu jeex de waaye woote lu feeñ woote lu nëbb bu nëbbët bu kenn yëgul mu ngi woote su nit ñi toogee mu ngi woote yaakaar ne kooku la yàlla mu ne alfu sanatin illa xamsina aman junni at yu manqué juróom fukk noo découragé wu muy woo ñu dëgër bopp ñoo xam ne bu leen di woo jaalu asaabiahum fi azanihim wastaxsaw siyaabahum wa asarru wastakbaru istikbaar te taxawul mu découragé découragé mi ngi taxaw di woote guddi bëccëg mu taxaw guddi ak bëccëg moom yoon ci yàlla noor ci pas-pas boobu mu fi fekk ñu dem ba ci yàgg sax di ko dénkaanante di ko dénkaanante borom kër guy dee da koy wane ne gis ngeen góor gi ñu ne waaw mu ne bu leen ko gëm de parce que yàlla da ko alak moo tax du dee depuis suñuy maam la fi nekkoon xam nga dafa gudd fan depuis suñuy maam yàlla da koy jëpp kon nag bu leen ko gëm dañ koy dénkante mais est-ce que tax na mu dem dem këram toog ah est-ce que tax na mu ne yàlla bàyyi ma bàyyi daaw bi sonn na woote naa ba sonn wala ñun day gis benn waaye boo xam ne def na sunna fanweeri at mus ta indi kenn boo doon laaj fii mbooloo mi kan moo fi indi ñaari nit ci sunna jigéen ñii kan moo fi muur moroomam du bëri de dina am ne mais du bëri ku nekk fi nga toog tegal sa baaraam sëdd na nga laaj bi nga nekkee sunna ba léegi ñaata leen nga indi ci sunna abu bakrin saddiq radiallahu anhu wa ardaahu keroog ba mu duggee ci diine ji dafa ne yonente bi lan moo ma wax yonente bi ne ko li ma war moo la wax mu ne xaar ma ñëw mu génn indi Usmaan ibnu Affaan ci suba si mu génn indi Usmaan ibnu Maazum ca suba sa mu génn indi Bilaal ca suba sa mu génn mu indi Arqam ibnu juróom-ñaari fan bis bu nekk Abubakar dina diri benn ponkal indi ko ci kanamu yonent bi da ngay jàng ñu ne al mubashirina bil janna ñaata lañ fukk lañ juróom-ñaar ñi Abubakar moo leen dugal ci diine sept personnes yi ci asaru mubashirina bil janna Abubakar moo leen daaw ñun bi ñu nekkee su nit ba léegi yéen ñi bi ngeen muuroo ba léegi ñaar nit ngeen muur ku ci muur ñetti nit léegi di loxo ndeysaan allah yarhamukum fii nag na kenn yëkkati loxoom ku fendi juróomi nit ci sunna ndeysaan allahu akbar laa ilaha illa allah buñ ne woon kenn ku ko xam ne nag ku nekk ba nga dundee sunna ba léegi fekk munisé nga ñaata lal nga fi daaj parce que loolu sa liggéey la sa intérêt la sa force lay dellu gis nga li ngeen si loxoy jóg intérêt yàlla bi nag yàlla moom genn wàll lañ koy jox genn wàll gis nga mooy diggante 6 heures ak 7 heures la ñuy jox yàlla 6 heures 7 heures suñ bala ñuy daawaat dimanche dimanche la ñuy daawaat am na ñoo xam sax duñ daawa ñoom mosuñoo daawa parce que daawa mooy nga dugg ci dëkk bi dugg ci koñ bi di récupérer nit ñi comme ni ko gars yi defee léegi gis ngeen moo tax it bu leen fi toog naan pas-pas yi dañoo bon parce que borom pas-pas yi kon ñoo dem di luqati ji nit ñi ñoom da leen jaral leen ñu ñëw ci koñ bi wax ak paa paa dañu dañu bëgg ah nga bàyyi sama kër yi ñu ñëw ànd ak ñi ndax yow gis nañ la ci tarixa bi nga bokk nga def paa bi est-ce que buubu leen ñëpp yóbbu yéen nag ah comme daawu leen tey ñoom fi nekk naan pas-pas yi dañoo bon borom pas-pas yi bon yi ñoo daawa ñoom bu ñuy commencé dañuy commencé heure amuñu arrêt dañuy dem ba yéen bu ngeen di commencé dix heures et demi te léegi gis am ku la bind benn feuille ne waaw benn de lu war a pas-pas yi bon parce que terrain bi amul ñu ko rek dëgg ak fen ñooy xeex waaye fen bis bu nekk dafay samp mooy bu dëgg dawee te nag loolu du fi jóge de assiraa bayna alxaq walbatil siraun daimun wa mustamir ila an yarisa allahu al arda wa man alayha diggante dëgg ak fen dañuy xeex ba asamaan di xëy di fi jóge bu leen yaakaar ne bis dina ñëw parce que pas pas yow yéen daal di mais yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu salaam yéen yéen a ko ëpp yërmande wala ko yéen a ko ëpp stratégie wala fu nekk dem na nekk na màkk woote fukki at ak ñett di tafar pas-pas yi yëf yi nag kat ci dëgër mu bàyyi dem taayif ñu dóor ko ba deretam sang ko mu bàyyi taayif dem Madina ci munaaw xoola ba mu demee ba samp état bi xanaa mu doon ne ne allahu akbar mbir mi samp na commencé defar ñu defaral ko ay firgo indil ko mat la mu commencé tëdd di nelaw ñu koy ataayaal di ko lakkal yàpp muy lekk keroog la commencé daawa buur yi buur yi xoolal yonte yàlla Muhammad bu doon dund tey dina bind dina bind lettre nu waa ji tudd ki nekk Amérique Obama ne ko aslim taslim parce que bindoon na lettre ñu ñu ko ëpp doole bind na lettre Kisra bind na lettre Kaysar bindoon na lettre ah bindoon na lettre yooyu jaxidillah booru mu jëm mu xaw xis Allah yëpp buur xam leen ko ñëpp bind leen lettre ne leen tuub leen yónni saxaaba yi ci àddina bi saxaaba yi di daawa ji ah innama bu istum mu yes wala saxaaba yi lan lañ doon wax su ñëwoon sax ci dëkk dañ naan buur bi ne lu la indi dañ naan jiraan jit naa li nuxrijakum min diiqi dunia ila siati al axira wa min jawri al adyaan ila adli al islam wa min ibadati al ibad ila ibadati rabbi al ibad loolu moo nekkoon seen kanam imma nasr wa imma sahaada wala ngay dem Inde fekk fa ay sahaaba yu ñu fa suul nga ñëw Irak fekk sahaaba yu ñu suul nga dem partout dans le monde xoolal yonent bi doomam sax ñëw na Afrique doomu yonent bi ñëw na Afrique rek ngir daawa ñun allahu akbar te balaa ngeen doon xam ne ñun liggéey nga génn fii rek dugg ci dëkk séeréer yi lépp murtat nañ léeg-léeg sax nga gis jàkk ñu def église waaw xam nga yéen ku leen ko wax da nga dig fi ñu ko nekk bi ñu doon ngir subhanallah ah wallahi bu ngeen génnoon fii ngeen dem dëkk di ngeen gis jàkk ju ñu def église wala ngeen gis jàkk joo xam ne ay nag ñoo fay fanaan wala ngeen gis jàkk joo xam ne ginaar moo ko góof nenam ginaar alors bu ñu leen ko waxee yéen du ngeen ko mun ngëm waaye ñi génn ci àll bi ñoom xam nañ loolu lu ko waral ay julli ñi dañuy toog fii nor fu Dakar fii toog fii Dakar ah naan ataaya ak di werante ci ay xadis yonente bi bu daan lekk gerte nan la koy lekkee ñi naan benn ñi naan noo da daan tibb dànk boo xam loolu mooy suñu programme mbokk yi ci modèle yooyu nga xam ne taxaw nañ di xeex pas-pas bu bon ginnaaw nu bokk na ci Ibrahim alayhi salaam Ibrahim xool leen jamono lu mu fekkee nattu weesuwul papaam jur ko te papaam moo jiite jaamukaayu xërëm bi mooy yett xërëm yi di jox Ibrahima ne ko demal jaay waaye xoolal keroog ba ko papa ji njëkkee yan bool bi def ci xërëm yi ne ko demal mu jaar ci mbedd yi kuy jënd lu ko dul jëriñ kaay leen jënd lu leen dul jëriñ ñu ne waaw yéen yéen a ngi dégg xale bi li muy wax ah mbir juddu na ci koñ fan la mujjee yemul foofu mooy dem ba ca xërëmu kaay ba daaneel yàlla yi wékk yàlla ju mag ji jaas yi pour lan pour yëngal xel yi pour ñu xam ne lii ñuy jaamu du dara parce que mu ngi leen doon wax ne kaay leen ngeen jënd lu leen dul jëriñ kon tey fam mu woon leen du leen jëriñ bi gaa yi ñuy fekk yàlla yëpp daanu ñu ne man faala hada bi alihatina ñu ne dégg nañ benn jeune samina fatan dégg nañ benn jeune bu dëkk ci quartier bu tudd Ibrahim xam nañ ne moo ko def parce que bu daan jaay yàlla yi danaan kuy jënd lu ko dul jëriñ ñu ne dem leen ngeen indi ko dimbali leen seen yàlla wansuru alihatakum dëkk bi yëpp génn taxaw Ibrahima ñëw dong taxaw ñu ne ko ndax yow yaa def ni yàlla yi mu ne leen da ngeen dox yéen ngeen gis yàlla yëpp daanu ponkal bi taxaw wékku jaas yi ngeen ne man la ah mais laaj leen ngand mi ñu ne ko yow yaa gën a tey ne yàlla yi du ñu buuse du ñu wax du ñu gis mu ne leen uffin la ko yéen da ngeen a dox lan ngeen di jaamu loo xam ne du jëriñ du lor suñ koy lor sax moom mun ta te mun ta tenir gis nga xoolal mbooloo mi yëpp daal di yëngu mais xam nga nit ñu amul réseau nit ñu amul xam-xam ñu yomb yóbbu lañ la ñuy doon ñu yomb yóbbu loolu Senghor daf koy nettali Senghor nee na nit ñi bu ñu jàngul amuñu xam-xam mu ne dañuy nekk ay bàyyi ñu ne ko lu tax nga wax loolu mu ne benn bis damaa génn di def benn meeting ci Sénégal ci kaw gi mu ne maa ngi taxaw di wax di wax ak mbooloo mi ñuy yuuxu naan way Senghor wax bu ma wax rek ñuy yuuxu mu ne fi ma taxaw ma jékki-jékki sama garde corps bi ñëw démb ne ma dañoo assassiné Amical Cabral léegi xam ngeen Amical Cabral mooy ki nekkoon Guinée Bissau ñu wax ko dee ko Senghor ne ko dañ koo rey léegi Senghor daal ne teg ko caag mu ne dañ ma wax léegi ne dañu assassiné Amical Cabral nit ñi ne woy Senghor woo parce que ñu ngi doon yuuxu rek xam nga moom bi mu doon wax sànq nit ñaa ngi yuuxu ba léegi wax na wax joo xam ne kenn waru ko yuuxu mais yuuxu nañ lu tax parce que xam mu ne loolu moo lay wone nit ñi dañoo gëm fuul fuul gis nga tey bu ay xale jaaroon nii léegi di yuuxu di sànni ay xeer léegi nga gis fii ci mbooloo nga xam ne jóg topp leen du xam si duñu xam sax ñii lan moo tax ñuy jóg dañu yëg-yëg rek kay commencé loolu moo tax yenn saa yi nga gis ay agresseur dañuy nekk ñetti nit stade lamb bi tas wala football bi tas ñu commencé agressé di jël yi fi jàmbur yi nga gis ñoo xam ne seen yoon nekku ci commencé di jël su ko defee nag léegi ñu jàpp leen nga dem ñu kooku du agresseur non kooku du sàcc mais daf doon profité daf doon profité loolu moo tax ay nit yu amul conscience baaxuñu ak nu ñu mënta toll ak mbooloo mi nu ñu mënta mel gis nga keroog Ibrahima dafa yëngal xel yi waaye comme buur bi dafa muus mu ne leen dimbali leen seen yàlla yi rek nit ñi daal di yëngal luñ def mooy dajale ay matt pour lakk Ibrahima mais terewul ne Ibrahima won na leen ne taxaw na ci xeex ak buur bu toll ne Namruud xamal ko ne doo yàlla yàlla mooy yàlla gis ngeen seen xiwaar ñoom ñaar seen discussion fa mu tàmbalee yàlla mooy kii dundal di rey mu ne ko man damay dundal di rey daa di jàpp kenn rey jàpp kenn baal ko ne ko dundal naa kii rey naa kii mu ne ko yàlla mooy indi jant bi fii bu ko yàlla indee fii indi ko fii mais dafa taxaw demul tëdd biir këram naan nañ ko bàyyi ak yàlla kii yàlla dina ko alak comme ñun li ñuy def ñun dañuy daw responsabilité duñu duñu daawa duñu wax loolu moo tax kon ñun amuñu droit nekk fi naan pas-pas yi dañoo yàq parce que ñun dañ koo bañ dañ koo ragal a wax waaw nangu ñemewuñ ci sax discuter ñemewuñ keneen mooy yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam xool leen yonent bi lan lan la fekk kaaba ga lan lan la fekk yonent bi lan la fekk màkka ñetti téeméeri yàlla ak fukk ak ñett fan la mujjee ba bis ba muy ñëw naan qul jaa alxaq wa zahaqa albaatil inna albaatila kaana zahuqaa di joxoñ xërëm yi ñuy màbb di daanu ci suuf ñu setal kaaba gi ba mu set picc loolu ñaata at la ñaata at la yonent bi daawa ñaata at ñeent fukki at la ko yàlla yónni yonent baa ngi dund yonent bi ñaata at la dund ah yonent bi ñaata at la dund